يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال ñu mën a xam ne xamuñ dara ñoom malayka yi boog falamma ambaahum ba nga xamee ne xamal na leen moom aadama xamal na leen ñoom malayka yi bi asmaihim ci turi bagage yooyu xaala borom bi na leen ñoom malaayika yi ci yedd yedd leen taw bii tawbiqan alam aqul xanaa waxuma waxuma hoon man yàlla lakum ñeel leen na leen inni naka man yàlla ëhlamu xam naa xayba samaawaati lépp lu fàddu ci asamaani juróom-ñaar wala ardi ak suufi juróom yaar wa ëhlamu ta xam naa maa tuddoona li ngeen di feeñal wa maa kuntum ak la nekk ngeen taktumuna di nëbb ko li ngeen wax ak li ngeen bëgg a wax yëpp xam naa ko man yàlla kon nag su ma jogee bëgg a def dara bàyyi leen ma ci li ma bëgg a def rek mbindeef mi danaa ko bind mbindeef mi danaa ko bind muy aadama waaye bi mu bëgg a wan malaayka yi ne leen moom yàlla moo am xam-xam mu bind ay matériel ne malaayka yi ndax xam ngeen ko ñu ne ñun xamuñ ko mu ne mu xamal ko aadama ba pare ne aadama demal na nga tij leen te ku la tijjati rek nekk sa sëriñ waaw ku la tijjati nekk sa sëriñ te ku nekk sa sëriñ war nga koo màggal war nga koo respect waaye malaayka yi teeloon nañoo wane seen bopp ci puugarewu yàlla bëgg leen a xamal ne mbindeef mii may isi su góor góorloo topp ndigal bàyyi tere comme moom dafa am bànneex moo leen a gën a foor moo tax ba mu ko bind daf leen ne màggal leen ko nuyu leen ko ngeen màggal ko pour malaayka yi def loolu dafa njëkk xamal aadama aadama dem xamal leen te ku la xamalati nekk sa sëriñ kon yàlla moo tij aadama aadama amut amut ticca bu dul yàlla yàlla ko tij bi ko xamalee lim war a xam ci la dem xamal malaayka yi moom aadama yàlla nag ne malaayka yi kon nag seen sëriñ a ngoog màggal leen ko ab sëriñ dañ koy màggal hmm? sama borom ne aadama mbindeef maa mat na léegi su jootal leen ko ngeen màggal ko soo borom ne wa fàttalekul yow yonti yàlla muhammadu sallallahu alayhi wa sallam isqul naa bañ waxee ñun yàlla lil malaayikati ñeel malaaka yi na leen isjudoo su jootal leen li aadama ñeel aadama fa sajadoo ñoom ñëpp ñu su joot ndax sañu ñoo bañ ndax ñoom duñ mooy yàlla illaa iblisa ndere iblis iblis de moom abaa bañ na wastakbara mu réylu wa kaana mujj bokk minal kaafirina ci xéeféer yu mag yi de iblis moom dañ koy askan ci malaayka yi waaye bokkut ci waaw waaye jinne la woon waaye ànd gi mu ànd ak malaayka yi ci pay yàlla bi ak sax gi mu sax di jaamu yàlla ci jamono bu nekk yàgg ci yàgg ci jaamu yàlla lool moo tax bi yàlla di santaane mu boole ko ci waaye moom tamit ba mu bañee ndigali yàlla ci la ko yàlla konte ci xéeféer yi waaw kilifa moom waxam waaw rek la sant soo soo waxee noo rek ngeen yàqoonte kon iblis tudd doon iblis waaw xasaa siiru la tuddoon jaamu na yàlla mën nañoo wax ne foo teg sa tànk ci kaw suuf iblis taxaw na fa sujjóotal fa yàlla ay junni junni liggéey na ko ci àjjana ci ndigali yàlla waaw ay junne junne at jihaatal na ko yàlla ci kaw suuf waaye kera bi ko yàlla ne defal mu ne maa lànk defuma kera la ko yàlla dégg nga génne dàq ci yërmandeem dàq ko ci pays yàlla bi mu yàqule liñ cee déggee mooy kilifa daal waxam waaw rek la sant sujjóot boobu du doon sujjóotab julli sujjóotab màggal la rek mooy sujjóot bi nga gis suñ mbokki aami yi di def rek di la saloot waaw façon boobu la rek sujjóotal mooy sujjóotab màggal la rek même bu fekkee dañoo sëpp seen jë wala seen loxo lañ yëkkati wala ñu lunkal seen bopp yépp sujjóotab lunkal bopp yépp màggal rek lañ ci jublu dafa am sujjóot boo xam ne moom su jota bi yàlla la boobu kenn du ko defal doomu aadama mooy jël sa jëbi teg ko ci suuf sa ñaari loxo yi nga teg ko sa xóom yi nga teg ko sa cati tànk yi nga teg ko juróom ñaari cër yëpp sëpp ci suuf loolu kenn lañ koy defal mooy yàlla koo ko defal ku dul yàlla rek xaraam na waaye gis nit sëggal sa loos wi wala nga simmi say dàll wala nga simmi sa mbaxana wala nga jox ko loxo dégg nga ñaari loxo wala nga simmi say say dàll dégg nga wala nga sukk yooyu yépp ku ko defal boroom xam-xam wala nga defal ko ku la neex sa way jur dara nekkut ci ndax bokkul ak sujjóot bi ñuy aaye waaw simmi mbaxana moom ci buur yi lañ ko xamoon léeg-léeg nag ñu defal ko borom xam-xam yi waaye ci buur yi lañ ko xamoon maanaam sëriñ borom sëriñ bu sëriñ ñëpp euh, diina islaam daal lañ koy simil daal la waaw waaye mbaxana buur lañ koy simil ñun nag léeg-léeg yëpp lañuy ñuy boole dañuy simil Euh, sëriñ yi sax mbaxana ba tey baax na màggal lañ ci jublu waaye sujjóot bii yàlla santoon leen sujjóotam màggal la borom bi tabaraka wa taala ne malaaka yi seen ticca baa ngoog muy aadama sujjóotal leen ko ndax jàngal na leen te xamal na leen lu ngeen xamut te ku la joxati xam-xam kooku nekk na sa sa sa sëriñ imaam Ali noon na man de ku ma xamal benn xaraf sax mën naa mujj nekk sa jaam su la neexee war bu la neexee jaay bu la neexee liggéeyloo moo tax nit bu fekkee yàlla dafa def nga jaar ci moom benn daf laa jàngal te mooy li ñu tuddee sëyqu taxliim mooy li ko door ci jàng alquran jàng xam-xam dégg nga wala sëyqu tarbiya koo xam ne daf la sóob ànd ak yow di la dimbale di la dimbale ba nga am mbëggeel ak yàlla ba nga am yëg-yëg yàlla wala daf la tarqiya ba nga am fuglu yàlla ci jamono bu nekk xam yàlla di ko wéetal su fekkee loolu am na sëriñ boobu sëriñ la ci yow war nga koo màggal war nga koo jox cër way jurum maanaa la comme niñ la santee nga fonk sa papa ak sa yaay di leen dimbale noonu la sëriñ boobu itam mel waaw aadamaa ngi nii jotewul ak malaaka yi dara waaye yàlla nee na malaaka nañ ko sujjóotal te sujjóot boobu wax naa la ne la màggal lañ ci jub lu tax parce que euh, dégg nga jàngal na leen moo tax xam-xam la ñëpp war a dem uti ku ci xam-xam raw nga dem uti alal ñaari ñooy tànki adduna xam-xam ak alal waaw borom xam-xam su amee borom alal di ko dimbale liggéey bi day yomb borom alal su amee borom xam bu koy wan yoon wi di ko dimbale liggéey bi day yomb waaye ñoom ñaar buñ tàqalee ko rek jafe-jafe ñëw ki am xam-xam te amul doole bu boobaa su amul borom alal di ko dimbale te boole xam-xam ak alal dafay am waaye léeg-léeg day xaw a jafe su boobaa day métti waaye borom alal ji itam su fekkee jéemu da topp benn borom xam-xam su oytuwul rek alalam ji mën na koo sànq kon ñoom ñaar ñaari tànk lañ benn tànk mënta dox wala dox bi du rafet aduna ñaari la soxla xam-xam nag dafa ëpp doole alal te gën ko lool donte ñoom ñëpp a baax borom bi tabaraka wa taala nee na yarfau llahu lazina amanu minkum walazina utul xelmu darajaat yàlla nee na ñi doon jihaad dee yëkkatil naa leen ay daraja ay maqaama waaye nag boroom xam-xam yi ñoom ñoo nekk ci kaw ñëpp soo demee ci alquran ci ali imran mu nga naan sahida allahu annahu laa ilaha illa huwa wa malaikatu wa ulul xelmi boroom xam-xam nekk ci third position sahida allahu annahu laa ilaha illa huwa yàlla ne seede naa ne yàlla rek kay yàlla wa malaikatu malaaka itam seede nañ ne yàlla rek kay yàlla wa ulul xelmi ak boroom xam-xam kon borom xam-xam ñëw nañ yàlla malaayka yi borom xam-xam kon borom xam-xam dellu na amati daraja ju amaat na foofu daraja ju kowe ma mu kowe mooy nekk ci ñetteelu position bi ngi nii ñoo xam ne seen xam-xam yi yàllaa leen ko jàngal daay rek aadama mii moo ci njëkk aadama moom la borom bi wax ne wa allama aadama al ko jàngal mbooleem xam-xam comme mooy ticcaam ci jàngal googu yàlla jàngal ko ci la mën a nekkee xalifa yàlla ki ko malaaka yi su jóotalee gannaaw ga am nga ku ñuy wax dégg nga euh, Moussa yontu yàlla Moussa moom moom itam wala boo xudar xudar mi ngeen di dégg ci xam-xam la ko la ko yàlla joxee taaliba bu mel ni Moussa xam nga yonent yàlla Moussa ci juróomi yonent yi gën a foor la bokk kon bu demee be xudar di nekk taalibeem xudar euh, di nekk sëriñam xam-xam a tax ndax Moussa ba mu demee ba yaakaar ne moom moo ëpp xam-xam ci mboolem lu yàlla bind yàlla daf ko ebal ci tefesu géej gi mu fekk fa benn jaamam yàlla bu ñuy wax xudar xudar moo doon naaw min la dunaa xelman yàlla ne kooku waxalam naaw min la dunaa xelman ñun ñoo ko jàngal yàllaa ko tij moo tax mu am taaliba bu mel ni Muusa ak Yuusuf bun Nuun yontu yàlla yusufa yàlla xamaloon na ko firi gént rabbi xad xad aataytani min al mulki wa allamtani min taawilil ahadis yàllaa ko xamaloon daay rek firi gént xam-xam booba moo tax mu mën a mujj moom nguur ak Égypte mu mujj ci loxoom si lii xaa mooma mujj nekk di jabaram daawuda yàlla yàllaa ko xamal daay rek nu ñuy liggéeyee mbubbi koŋ yile maanaam métier ma mooy liggéey mbubbi koŋ dégg nga euh, bagage yooyu muy liggéey te tëgg tëgg la woon loolu yàllaa ko ko jàngal moom métier mi kenn jàngal ko yàlla moo wax ne waalam naaw sanaxatal la buusin yàllaa ko xamal daay rek ci xam-xam boobu ci la nekkee buur nekk ab yonentu nekk buur suleymaan waxoon na ne ollim naa mantiqa tayri yàlla xamal na ma lu picc yi di wax xam-xam boobu yàlla xamal ko moom suleymaan ci la a dem be hoo balxiis ma nekkoon Éthiopie dégg nga ba mën a isi lalam ba man ko oo ci yàlla yonti yàlla xinsa yàlla xamal na ko xam-xamu maharifa xamal ko tawraat ak jiil borom bi tabaraka wa taala ne dégg nga wa yuallimuhumul kitaaba wal hikma alquran mu ne xinsa yàlla xamal na ko dégg nga hikma xamal ko tawraat xamal ko linjiil wa yuallimuhumul kitaaba wal hikmata wa tawraata wal injiil loolu moo tax yunti yàlla xinsa mujj moom itam dal di yëkkateku yëkkateku ci asamaan dégg nga ci may ak yàlla mooy ci maqaama yu kawe yi rek ànd ak malaayika yi te nit la yonent yàlla muhammadu borom bi nee na tabaaraka tabaaraka wa taala wa allamaka maa lam takun taalam xamal naa la loo xam ne xamula ko woon moom itam yàllaa ko tij loolu moo tax mu raw ñépp kon juróom ñaar yi yàllaa leen jàngal xamal leen moo tax ñoom itam ñoo raw ñépp waaye seen xam-xam booba moo tax ñu am lañ am moo tax xale yi nañ daw uti xam-xam benn jàng alxuraan jàng xam-xam alquran nag nit ñaa ngi koy mokkal waaye xam-xam lañ sàgganee léeg-léeg nga gis internat yi xale yi danañ jàng ba mokkal waaye buñ mokkalee li ñuy mujj def rek mooy dem ci marché yi jaay duñ uti xam-xam te alquran loo ko mokkal mokkal su fekkee xam-xam topp ci ñaare euh, dana jafe lool nga jëriñoo ko xam-xam même su fekkee mokkalul alquran sax waaye boo amee xam-xam la day mel ni mokkal nga alquran ndax mokkal alquran ñaari xaaj la ki ko mokkal mën koo tëri ak ki ko mokkal ci ci xam eh, aaya yi muy firi mu koy jëfandikoo mangoo su ko defee xam-xama ngóog imaam Ali nee na xam moo gën alal ci juróom-ñaari mbir mu ne alal ndonoy buur yila la xam-xam donoy anbiyaaw yi la mooy yonent yi alal booy dépassé ragal nga ca wàññeeku xam-xam booy dépensé muy yokk jàngale kat moom day gën di xam rek waaw mu ne alal moom imaam Ali yi dégg nga jullit ak xéeféer yépp la ko yàlla tegal ñi koy bànneexoo xam-xam ñi gëm yàlla rek ñoo koy bànneexoo nee na xam alal dégg nga yow yaa koy wattu alal yaa koy wattu bañ mu yàqu bañ mu réer wutal ko waaj maan ay xaaris waaye xam-xam moo lay wattu alal su doomu aadama bi deexee bu faatoo jeexal na ca xam-xam nag soo ko amee te di di ko jëfandikoo soo faatoo mu ànd a yow alal dafay nekk bagage yu diis ëllëg ci siraat boo bëgg a jàll xam-xam nag dafay nekk làmp di la niital imaam Aliyu nee na xam-xam dégg nga moom nit ñi yëpp dañ ko soxla dégg nga alal nit ñi yëpp dañ ko soxla wala boog diina xam-xam nit ñëpp dañ koo soxla ci seen diina waaw ma kon xam-xam lu am solo la yeneen bi salaa sallam nee na sàkkukati xam-xam bi dañ koy malaaka yi dañ koy lalal seeni mbagg loolu mooy mànde rek kon xale yi nañ bàyyi xel xam-xam xam-xam nag su ma ko waxee dama ciy jiital jàng alquran ak xam-xam jàngu diine waaye xam-xam dugal na lépp yow mi dem jàng anglais sax ba mën a euh, man ci am mécc yow mi dem jàngi mécc ba man cee man man dara ba yow mi jàng commerce xam-xam daal mooy lépp loo xam ne ni euh, boo ko xamee mu jëriñ la ci xam-xam la bokk donte nag xam-xam bi ci jiitu mooy xam-xamu diina xam-xam sa borom wéetal sa borom te jaamu ko xam-xam boobu moo ci jiitu suma borom ne wa fàttalikul yow yonti yàlla muhammad isqaala isqul naa ba ñu waxee lil malaayikati ñeel malaaka yi ne leen usjudoo sujootal leen li aadama ñeel aadama ñoom malaaka yi fa sajadoo ñi sujoot illaa iblis a ndara iblis abaa bañ na wastakbara mu rëylu wa kaana mu mujj nekk minal kaafirina ci way weddi yi de booba la ko yàlla dàq ci yër mandeem waaw sama borom ne waxul naa ñu wax ñun yàlla ci gannaaw su jóot ga ne yaa aadama yow aadama uskun dëkkal anta yow wa zawjuka ak sa ñaareel bi kila ñaareel ci wujjóot te mooy xawaa aljanata ajjana wa kullaa lekk leen min haa dégg nga ci àjjana ji raqadan ci yaatu xaayi huñ leen dara xaayi su siitumaa fu leen neex ak lu leen soob waaye wala taqaraba ba leen jegeñ yéen ñaar haasihi sajarata garab gile su ngeen ko jegee fa takkoonaa ah, da ngeen mujj nekk mi na daali mi ne bokk ci tooñkat yi de borom bi tabaraka wa ne aadama yow ak sa ñaareel bi waxut ko uskun anta wa sawjatuka sawjatu mooy jabar sawju mooy jëkkër waaye lu ko alquran toujours ma wax la ne boo ci duggee soo ci duggee ak dégg araab rek da ci génn waxoon naa la ci njëlbeenu saar wi ne la fokk da nga xam luxa araab dëgg-dëgg waaye fokk danga am leer gu jógee ci yàlla pour mën a xam maanaay yi uskun anta wa sawjuka jabar lañ koy firee te boo delloo ci alquran wala ci luxa araab daf lay wax ne saw jëtuka mooy firi jabar saw juka jëkkër la te aadama ak xawaa la te xawaa jigéen la kon kay uskun anta wasaw wa ko xanaa la waroon a wax waaye foofu firib leer leer xol loolu ñaa ñaareeli wujjóot bi la saani wujjóot kuñ njëkk amal du aadama kuñ ca teg ñaareelam mooy xawaa moo tax mu jëfandikoo wasaw juka ak sa ñaareel bi ci xam mooy xaala may nii rek xaalamul xol wi ak xaalamul suufli asamaan ak suuf waaw góor ak jigéen baax ak bon mooy saw jéeni yi nga dégg alxuraan di jàngale rek moo tax mu jëfandikoo wasaw ju ko waaye bu fekkee da nga dellu ci arab rek bu ne wasaw ju ko dangay ngay gàgg da nga ah man de ma foog ne xanaa wasaw jotu ko la waroon a wax waaw léeg ngay dégg gars yi di ci xaw a joxe ay jamag lu tax yàlla wax nangam nangam ñaari lu wujjóot bi dong la yàlla dégg na arab hmm. dégg na arab saani xadaratu mooy ñaareeli pay yàlla bi ñaareel bi ci pay yàlla bi mooy ñaareeli wujjóot bi salli alal isnayni ramsati kulli isnayni wa sirruhu fi isnayni wa saaka sirul asali uskun anta wa sawjuka dugg leen àjjana waaye àjjana ji nag li ko yàq mooy dafa am lu leen yàlla aaye àjjana moom warta am dara lu ñu la war a aaye àjjana moom da war a continuer rek bàkkaar amatul dara amatul waaye àjjana joo xam ne dañ la tegal condition lekk leen lu leen neex def leen lu leen neex waaye garab gi ba leen ko laal booba la àjjana ji yàqu dama aadama boo ko aayee dara rek fu mu jaar dana ko def soo borom ne waqul naa ñu wax ñun yàlla ne yaa aadamu uskun dëkkal anta yow wa sawjuka ak sa dégg nga àndandoor bi aljanata ajjana wa kulaa lekk leen mina ci ajjana raqadan cig yaa wala ah, raqadan cig yaa ay si surtout fu leen neex de wala taqaraba waaye ba leen jegeñ haasihi sajarata garab gi le xaaye naa leen garab gi fa takoona dangeen ngeen mujj nekk mi ne daali mi ne bokk ci way tooñi de su ngeen lekkee garab gi fa azallahuma tarqees loo na leen a saytaanu seytaane xan haa dégg nga ca biir àjjana fa axrajahuma génn na leen mimma kaana fiihi ca xiwal gañ nekkoon ñoom ñaar di lekk de di ko bànneexoo léegi saytaane muy iblis moomu nga xam ne dafa bañoon a sujjóot xam ne teel naa feeñal ne moom noonu la moom moo leen topp topp na leen ba tarxees loo leen ndax iblis wax naa la ne jinne la man naa ànd ak doomu aadama bi di daw ci moom comme ni deret di dawee ci moom léegi nag tarxees loo na leen de waaw mooy juumloo na leen dugg nañ àjjana yàlla aaye na leen garab ga fa asalahuma juumloo na leen a seytaanu saytaane mooy iblis de nax na leen xan xaa dégg nga ba génne loo leen àjjana xan xaa waris dëkk ci àjjana ja fa axrajahuma mu génne leen ñoom ñaar aadama ak hawa mimma kaana fii ca bànneex bañ nekkoon ca àjjana waxul naa ñu wax ñun yàlla ne ihbitoo wàcc leen aca génn leen àjjana aadama ak hawa kay ihbitaa la waroon a wax waaye ihbitoo jamoo la de mbooloo la ëpp na ñaar ñu ne lu tax ñu ne xanaa sët ya ca ndiggam ihbitoo ñu ne déedéet ak jaan waaye lu mën a daal ihbitoo wàcc leen ndax aadama hawa ku nekk xam na ne ak seen doom kay mbooloo la léegi wala sët ci seen digg de waxul naa ñu wax ñun yàlla ne ibitoo wàcc leen badakum lenn ci yéen xadduwun noon lañ li badin ñeel ñi aca dem leen ci suuf wàcc leen génn leen àjjana dem leen ngeen di noonoo ji moo tax doomu aadama noonoo rek di xeex rek tibbante tànk rek waaw tibbante tànk rek di yóbbu wante sëriñ rek kenn ku nekk di soxoree sa morom yàlla teeloon na koo wax baxdakum li baxdin haddu aca dem leen dem leen léegi da ngeen éeg dëkk barab boo xam ne noonoo rek ngeen fay nekkee baxdakum lenn ci yéen haddu wun noonu la ñuy nekk li baxdin ñeel ñenn ñi wala kum ñeel na leen filar di ci suuf mustaqarun dëkkuwaay ay kër waaw dangeen fi sax ba ci kanam wa mataawoon ak i bagage yu ngeen di bànneexoo ilaahi nin ba jëm ci waxtu wu neex yàlla da ngeen dem dëkk ci àdduna ngeen am fa dëkkuwaay am fi ay bagage di fi bànneexu di noonoo di rayante di xeex guddeeg di xeex mhm. guddeeg bëccëg ngeen di xeex noonoo boobu ngeen di def nag noonoo boobu ngeen di def ci ngeen di sax am ngeen kër yu ngeen di dëkk am ngeen matériel yu ngeen di bànneexoo loolu nag taayam la rek bis dana ñëw yépp jeex ngeen bàyyi ko fi dem mustaqarun wa mataun ilahin suma borom ne fa talaqaa saneñ aadamu aadamu min rabbi tukkee ci boromam kalimaatin ay baat talaqaa googu sànni la gaay di wax waaye sala rek aadama ba léegi yàllaa ko jàngaloon mooy ticcaam moo tax itam bi mu juumee yàllaa ko jàngal ba léegi baat yi nga xam ne moom la war a tuubee waaw wa sana aadamu aadamu min rabbi tukkee ci boromam kalimaatin ay baat fa taaba nangu tuub innahu naka borom bi huwa moom a tawaabu mooy nangu akoon tuub arrahimu mooy yërëm akoon julit de aadama ci la ko yàlla sax ne ko tuubal bakkaarab lekk garab gi bakkaarab moy sa borom ci la ko yàlla sax mooy lim ko sax mooy lan mooy rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna min alxaasirin baat yooyu la aadama wax yàlla baalal ko am na borom xam-xam yi wax ne iblis de dem na ba mu yàgg ñu ne dafa bëggoon a tuub waaye moom la mu doon tuubee moo ko fabriqué ñàkk sëriñ ak ñàkk kilifa moo tax la mu doon def amul benn njëriñ njëriñ dafa am ndigal dafa am solo ndigal ndigal dafa ànd ak njëriñ ku nekk xam na ne aadama comme yàlla tij na ko ba pare mënoon naa wax rek ne ko yàlla baalal ma yàlla baal baal ko waaye gis nga même tuub gi yàllaa ko ko sant fa talaqa aadama mi rabbi kalimaatin ndigal loolu moo tax ahlu sufa ak nii ba léegi dañuy dañuy digal nit lu ñu leen di digal mooy tudd yàlla lu ñu leen di digal jàngal alquran lu ñu leen di digal julli ci yonent bi donte ndigal loolu mu ngi fi te mosu fee jógee mosu jógee waaye nag ba léegi mën ngaa dem ci nit dem mu beesalal la wan la ne ah yàllaa la sant tudd yàlla yàllaa la sant julli ci yonent bi waaye dégg nga boo daakooree ma jox la ci dog boo xam ne subaa ngoon bu karatan wa la nga koy def nga ne ko d'accord naa mu la doo ko baaxaati de parce que yàlla la ko sant nga ne du ma ko baaxaati mooy la balaa nga ko def da ngay julli ba pare de nga ne waaw da fonk say de nga ne waaw da ngay fonk sariyantu nga ne waaw ñii la kon nag demal su ko defee nga del nekk tuddi katab yàlla lii rek la waaye du leneen moo tax aadama yàlla sana ko ay baat te mënoon na koo bàyyi rek mu ne ko yàlla tuub naa tooñ naa bu ko yàlla noonu jéggalul mu ne ko yàlla baalal ma mu baalal ko waaye fa talaqa aadama rëbbu dégg nga min rabbi kalimaatin kon ndigal lu am solo la ndigal am na solo yàlla moom bi muy sant tudd yàlla ñëpp la ko sant bi muy wax julli ci yonent bi ñi gëm yàlla ñëpp la ko wax waaye ànd ak nit ku baax mu jox la ci ndigal jox la ci lim pour bañ nga sàggan wax la ne ndax da ko saxal nga ne waaw waaw jooju dafay mujj nekk nisir te bu nisir nekkee nisir rek nekk lu war loolu dafay gën a ñaax nit ki mu gën a góorgóorlu loolu rek la ci mag ñi jublu woon xul naa ñu wax ñun yàlla ne ihbitoo wàcc leen min ha jógee ca àjjana yéen ñépp mu baamuwaat ko waaye dafa am lu ci bëgg a teg moo tax wàcc leen jëmeen yéen ñépp fa at imma yaatiyannakum waaye keroog bu dikkalee leen min nii jógee fi ñun yàlla huddan téere huddan njub huddan ab yónentu fa ma ni ittabaa ku topp na hudaaya sama njub su boobaa falaa xawfun alayhim ñooñe duñ am tiitaange ci àdduna wala hum noona duñ ragal ëllëg ci àllaaxira de ay ca dem leen ci kaw suuf ngeen dëkk fa su ngeen demee nag ah, danaa ebal ndaw mooy yónnentu yi ndaw li dana ànd ak téere muy ay loi yónnentu yooyu buñ demee danañ fi bàyyi ay borom xam-xam koo xam ne góor góor lu nga fekkee yónnentu yi nga ànd ak ñoom wala fekkee wala yónnentu bi waaye ànd nga ak boroom xam-xam yu jub yu màndu yi falaa xaw xawfun alayhim wala hum yaxsanuun doo am tiitaange tey doo am tiitaange ëllëg waaye tiitaange ji yépp ak ñàkk sécurité bi li ko waral mooy ñàkkaa dellu ci yàlla doomu aadama lu mu bari bëri alal bu jubul rek du ñeme fu mu toll xolam a ngi tiit lu ne teel foog na ne ci kawam la jëm waaye bu may la maarifati billaahi mooy xam yàlla ca wéetam nga waaye mu may la jaamu borom bi mu may la it mi idminaanu mooy dal te loolu tudd yàllaa koy def yàlla saxal loolu ala bi sikkirillaahi tatma inul qulub borom bi nee na it idminaanu mooy dal dëgg-dëgg sécurité dëgg-dëgg-dëgg tudd yàllaa koy def ci xol te te dëgg-dëgg-dëgg kaaraange ci xol lay nekk xol bi bu ci yàlla nekkee muy dëgg kooku falaa xaw xawfun alayhim wala hum yaxsanun waaye lu ca nekk lu doxut yàlla lu alal ji bëri bëri foo gis borom bu la ko waxee bu la ko waxut mu nga tiit mu nga jaaxle bu tëddee du nelaw lu ne téll ci kawam la jëm bu feebaree jàpp na ne dañ ko bëgg a rey ca office ba lañ ko doon xeexee ca euh, dégg nga kër ga lañ lañ tibbee tànkam ka doon xulóog moom keroog moo ko amee du ti du xel mi du dal lu ko dal mu ne keneen na ma ko teg parce que dafa manqué imaan ci xolam borom bi ne aadama dem leen waxtu wu sama ndaw ñëwee ànd sama téere muy luwaar hmm? ku ko topp déggal ko falaa xawfun alayhim wala um yaxsanun wala si ne gaañi nga xam ne nag su boobaa ci yéen këfaroo ñoom dañoo weddi wa kasaboo ñi fenloo dégg nga bi aayaati naa suñuy yónnentu bi aayaati naa suñuy luwaa bi aayaati naa ci suñuy téere ulaa'ika ñooñu asaabu naari ñoom de ñooy doon safara ñoo ko moom hum ñoom xaalidoona way sax lañ fi ci safara de su boobaa ñooñu ñoo moom safara de ulaayka asaabu naari hum fiha xaalidoon mooy ñi nga xam ne ndaw li ñëw nañu weddi ko yonent bi ñëw nañu weddi ko luwaa bi ñëw na weddi ko kum manta do rek ñooñu ñooy ñii doon safara boo ëllëgee yan nañu yàlla musal ci safara kon borom bi tabaraka wa taala nee na fa imma yaatiyannakum minni hudan fa man ittabaa hudaaya fa man tabia hudaaya fala xawfun alayhim wala hum yaxsanuun ku góor góor lu topp yonent yi ku góor góor lu topp borom xam-xam yi jub yi kooku du am tiitaange tey du am tiitaange ëllëg waaye wala si na këfaroona wa kasabo ñi nga dañoo weddi yonent yi weddi luwaa yi weddi borom xam-xam yu jub yi dégg nga ulaayika ashaabu naari hum fiha xaalidoon hum fiha xaalidoon ñii ñooy ñi nga xam ne